ñëw Madické Niang ñëw waaye li leer te wóor mooy incha allahu rabbi Macky Sall dina gagné ñu ngi koy félicité nag di encouragé ñu ci des ñëpp te xam ne c'est le Sénégal ki gañ Macky Sall lii daf ko mérité ndax dafa liggéey te dafa war a eggali liggéey bi mu tàmbali bu soobee yàlla deuxième mandat bi ci la ñëpp di xam-xam Macky njëriñ bi mu am Sénégal bësu bànneex bésu mbégte Sénégal moo am ndam dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nii di ci génn ci alhamdulilahi rabil alamin maa ngi gërëm samay militants yépp yi ñu jàppale maa ngi gërëm surtout côté HLM ñu ngi gërëm waa APR ñu ngi gërëm waa Benno Bokk Yaakaar mais comme nu leen ko rek senegal yépp ñu ngi leen di félicité ndax lii kat yombul dëkku Afrique bu bëri dañ ñoo ñee lii yombul lii yombul lii yombul jërëjëf.